إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير mbokk yi gannaaw bi ñu leen nuyu ñu ngi sant borom bi tabaraka wa taala di ko dollee sant ndax ñaanoon nañ ko daaw nañ fekk yàlla nañ fekkee déwén yàlla defal nañu ko ñu ngi koy ñaanaat di ko sant yàlla nañu dolli ñu fekk ay déwén di déwén te képp koo xamante ne fekkewu ko ren yal na fekk ne tabbi na ci ngir mande borom bi tabaaraka wa taala dañ fi bés dañ fi jógee yal nañ ànd ak tuub bu sell yal nañ fekk yàlla ci ngir mande eh, di sant borom bi rek eh, di ko santaat ndax lépp ci coobare yàlla la nit moom bu xëyee day xëy ci coobare yàlla ah, ak anam bu mu mën a demee na ndax eh, kullun lahu qaanitun koo fi gis yàlla topp sallaahu ki nga xamante ne si barabala xëy sa naan ba man bi soo bare yàlla kerek loolu la yàlla nangu ci moom faw mu def kon ñu ngi koy sant bi nga xamante ne nangu na di si kon ñu ngi koy sant yal nañu yàlla dolli alhamdulillah xanaa rek di bàyyiloo kenn ku tuuti bi nga jot root ci teen bi ndox du tuuti lu gën a tuuti ci njëriñu ndox mooy sooy sa bakkan lu gën a tuuti ci njëriñu ndox nit mun koo jëriñoo mooy nga naan ko mu sooy sa bakkan waxtuma nag li ci topp yëpp ndax wa ja'alnaa min al-maa'i kulla shay'in hayy loo fi gis ci ndox lay dundi kon ndox bi ñuy wax nag mooy bi ñuy root ci weer koor ndax weeru koor yàlla nee na da koo wàccee ci ñun la'allakum tattaquun ngir ñu mun cee jëlee ragal yàlla loolu nekk lu biir ci kenn ku ne gis nga kenn ku ne bés bii nii nii nu mu tuuti tuuti am na lu changé ci moom am na lu muy yëg li nga xamante ne boobu weeru koor bi dugagul nekkul ci moom am na lu tuuti lu mu am buggeel ci alquran wala déglu lu baax kon loolu nga rootee ci teen ba xam nga weeru koor moom ak alquran nu ñu demee dafa mel ni euh, buum ak baag bi ñuy takk ci buum bi soo yoree buumu kese ñëw ci teen doo mën a jot ndox soo yoree baag kese nga ñëw ci teen da tey doo am ndox waaye weer koor bu ñëwee lënkaloo ak baag bi muy góoj bi nga tàkk ko mën a duy li nga soxla nga dem moo tax weer koor saa su ñëwee rek ñëw na day beesalaat kenn ku ne mu am lu mu changé ci moom kenn ku ne xanaa nit a lottu rek moo tax toujours rek nit day war moo tax yonent bi ne toujours da leen di tuub ndax nit a lottu ndax wax dem nu ñu mel nii nu ñuy mel ci weer koor buñ ko continuer woon lu yonent bi waxoon saaba yi mu ne mun ngeen di mel bu ngeen nekkee sama kanam bu ngeen ko continuer kon ngeen saafonte ak malaaka kon kenn ku ne na bàyyi xel tuuti bi nga rot ci weer ci li nga déglu lu baax nga fas ko yéene tuuti boobu fexeel ba nga jëriñoo bu ko seytaane xapput lépp loo xamante ne rëccu nga ko tey bu mës a dellu si waat ci lu bon loo fas ne ci defar ci mbokk te nga déglu ko ci xutba bi ci tuub ci génnee lépp loo ci pare na nga fas dogu ca téye ko bi ba ngay dee nag téye ko sa bakkan waaye téye tey yolomal suba mel ni xale buy doog a ñu joo ko rendez-vous yi mu banque baaraam yi téye ko même boo ko tàllalee mu bankaat soo ko tàllalee mu bankaat ndax dafa am lu yàlla waxanteeg moom waaye bu muy yàggee rek muy tàllal par benn ba xëy tàllal lépp ba xëy tàllal lépp buñ mel noonu ci li nga xamante ne loolu la ñuy fasante ak suñu borom bi wax bi leer na suñ ko waxoon baam sax mu dégg te kenn ku ne ba mu lay jëriñ fekk nag tëdduloo nit fekk tëddul mu leer ko ne tëdd gii mu tëdd dootul jóge boobu tuubee du am njëriñ fekk yaa ngi mën a dem ñëw ñu ngi lay woo ngay wuy yaa ngi mën a solo sa bopp daal di mun a lekkal sa bopp loo mën a def ci bàkkaar soo ko tuubee nga xam ne yàlla moo la gën a baax génn ci te nga am yéene bu ci delluwaat te loolu ci yow la baax lu posoñ bu ko lekk pour kan la pour kon nañ bàyyi xel bu baax tuuti bu ñu eh, ba nga amee baag dangaa amoon buum kese nga yàgg ci teen bi léegi ñu ñëw ba jox la baax nga takk yoo yoo muy weer koor ñëw na nga yoor nu mu tuuti tuuti kenn ku ne am na ndox kon ndox moomu nañ ko jëriñoo waaye yal nañ ko jëriñoo ndox moomu yal nañ ko jëriñoo yal nañ ci sangu ba set yal nañ ci roose yal nañ ci bay ay hectares yi hectares yoo xam ne dootul jeexati ba faw ndax nit ci dundam kat mun na fee def loo xamante ne bu yombal ki amate bu ne ko yaa def lii ci lu baax tey wax ne déedéet man lu ma dund tollul nii fekk lu mu fi def lu baax la bàyyi ko fi muy continuer di ko fekk rek nit mun na nit mun na fi ji garab mu bàyyi ko fi garab bi tund téeméer ak ci gannaawam ndax mënul nekk garab bi mag yi fi gën a day laaj leen ba ñuy gis garab bi naka la toll bii ñu nekk ci ronam garab mën naa fee yàgg kon nit mun na fee bàyyi loo xamante ne mën na ko fekk waaye noonu la nit di bàyyee bàkkaar bu àllaaxira jotee mu taxaw ñu ne bàkkaar bi yaa ko def mu waat ne def ma ko ndax koo dund fekk ne moo ko fi doon bàyyi ko fi ñu koy def moo tax aw dëkk nit war naa bàyyi xel ab kër nit war naa bàyyi xel bu fa njëkkee dog mbokk bu fa njëkkee bàkkaar boo xam ne ku ñëw roy sa tànk nañ ko moytu indi ci dëkk loo xamante ne yow dem fii dee sa waa dëkk bi di ko def te lu mooy yàlla la bakkaar dina la fekk képp ku redd lu baax lu baax loolu ku ko mës a def tiyaabu bi dem ko jox fii ba àll àdduna bi tukki képp ku def jiitu jiitu lu bon def lu njàkkee lu bon lu bon loola nu mu yàgg yàgg yàgg képp ku ko mës a def même fii ba Amérique la ko defee sax yow sa bakkaar dinañ lu fekk kon loolu na tax nit bàyyi xel ci dundam doomi aadama boo génnee xel ci deseewul dara ndax li gën ci nit mooy xel doomu aadama li gën ci moom mooy xel xel bu jiitoo xam-xam topp mu jëriñ xel bu jiitoo am am topp mu jëriñ xel bu jiitoo wér-gu-yaram topp mu jëriñ xel bu jiitoo mbooloo topp mu jëriñ waaye boo jëlee xel teg fale jël bakkan jiital ko nit koo xamante ne bakkanam rek la topp bu amee xam-xam gën a bon nit koo xam ne bakkanam rek la topp bu amee am am gën a bon nit koo xam ne ak we bakkanam rek la topp bés bu yoree musiba am kon nañ bàyyi xel yàlla jox la lu valoré muy xel xel boobu di dimbale li koy dimbale muy dimbale xol bi di ko rootal ragal yàlla di ko ko jox xol boobu jiite cër yi yëpp di leen digle guddeeg bëccëg ñuy def waaye yal na yàlla defal suñu xol yi may ñu takwa nangu ñu suñuy koor ñu teewee koy ati at képp koo xamante ne fekkee na bés bii yal na lépp luy nattu sa kaw yal na ko yàlla teg natt bi rey te ñu xam ko ak li ko gën a rey te xamuñu ko ndax yàlla nattu yàlla kenn xamul nu mu toll te bi yal na ko yàlla teg teg ko ci kaw eh, eh, eh, doomi aadama teg ko ci kaw àdduna bi yëpp ñuy jaajëfal sëriñ bu baax di ko ñaanal yàlla may ko wér may koo gudd fan yokk ko xam-xam waaye barkeel la képp ku mu waxal yal eh, wax boobu di leer ci sa xol boo xamante dootul fii bi faw eh, eh, njaboot bi tamit ñu ngi leen di ñaanal yal nañ barke njabootu dëkk bii yal na doon njabootu alquran njabootu dëkk bii yal na doon njabootu lislaam yàlla bu leen dara réeral yàlla bu leen jamono réeral yàlla bu leen seytaane réeral yàlla bu leen bakkan not njabootu dëkk bii yal nañ bëgg alquran yal nañ yàlla kuñ ci bañ a dugal sax yal na nga bëgg alquran yàlla force sa bopp dem dugal alquran ndax dégg nañ ko ba taay ku mel ni ustaas buñ jëm xam nañ ko euh, mos nañ nettali naka la def ba jàngi bi moo demal boppam nee na nijaayam daboon na ko sax mu génneel ko paak néew da nga ma bàyyi ma dem jàngi bari na yal nañ am doom yu mel noonu waaye yal nañ am baay yoo xamante ne yàlla leen jaral lépp alquran moo leen gënal lépp yal nañ am ndey yoo xamante ne yàlla leen gënal lépp ñu dëkk bi daal yal na fi yàlla def ñu baax su ko defee mbaax boobu yal na law ci tund yal na law ci réew mi waaye yal na law ci àdduna bi wa maa zaalika alallaahi bi aziiz ngeen baal ñu àkk waxtu bi diire na war ñun wax sax ndax li xutba bi wax ku mu doyu ku ko déggul amul loo leen loo mën a dégg